li baaxin lahu xabdan ilayhi taawuqu xusil xaama yaa muxtaaru lillaahi xidmati alayka salaama man bi fii kaan xarat min almatruki billaahi waxdahu wa bayhi law bayhun bi laysa yufsaxu xuruji bi rabbi maaka min qabli haksasin wa yanhoo li xayri laa li naxwi muwabbixun allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi an abadan wa tublu alay wa tublu arda xurufi hadihi lamdaay basadana min ya baaxi li rabbi xuruji ma duxuli bi mansili maa xablahu wa maa xad mada min tasalsuli لو سوء أيضا متعقد قال منه هل المصطفى خير البرايا المفضلين لو نخذ هذا منه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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله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 assalaamu aleykum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 rabbi acuudu bika min hamazaati shayaatiini wa acuudu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmaani arrahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliima bismillahi arrahmaani arrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamiin sayyidina muhammad wa mawlaana muhammadin almakiin وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام معطي السول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن, فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث كنت man kaana yuminu billahi wal yawmi alaaxiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baarak anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yashfau fihi inda mumiiti maytihi wa inna man lam yatub minhum tawbatan nasuha faqad amarahu man waadahu nasiha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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق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 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتأث ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم mbokki jullit yi moo ngi leen di ndokkeel ci bis bu tedd gi xaas ko ak ci fukki fan yu tedd yi amma nga xam ne jëf ji baax des ciy ful yool ab safa nit ñu ciy ful mbugal ma laa qadar allah awul nag jënd jëf ji baax mën a def ak te yàlla farataalu ko ci moom demi ne ki julli juróom man tee am wétal am ci tabaskiam ci tuyaaba ak doonte ne dafa tabaski tabaski ma gën a suufe daraja ci tabaskiwul daa goreel lu jeex saraxe lu jeex lu baax lu mu xam mu def ca lu baree bari lu tax kii lim def li muy rëy rëy li muy bari bari ci coobareem la ko defe kële nag lim def ak lum néew néew dundal na ci sunna suñ feddli sax su war nga gis dundal sunna ni mu ëppee doole jëfi coobare ak lum rëy rëy ak li ci jaam mën a amee moom it nag ni ko jëf farata ëppee doole li yàlla farataal ci jaam bi mu def ko sellal ko ngir yàlla ba am tawfiix yàlla nangul ko ko loolu li ci jaam bi mën a ame yàlla rek a ko xam te moom rek a ko am rawatina bu dee ci bis yii nu toll ak ci weeru koor ci fukki guddi yu mujj ya rawate di bis yu nu war di dollee góorgóorlu ci def ndigal bàyyi ay tere te sax ci tuuba ko jéggulu waasi al maghfira di boroom te koy ñaan mu boole ci ñiy def lu rafet tam leen di faye àjjana al muhsiniina al bil husna alladina yajtanibuuna kabaira al ithmi wal fawahish tem na ñooy ñiy teet magi bakkaar ak jëf yi gën a ñaaw yi nga xam ne bakkan bu sell bu ne da koy seexlu te ñi koy jëf ak ñi ko dul jëf ñépp di ci xam ne jëkkul illa lamam ñi nga xam ne seenu nekk doomu aadama bu taxee ñu néew doole ci kanam seytaane ak bakkan yi tamit du tax ñu mën leen a weesuloo ndawi bàkkaar yi duñ leen mën a tàbbiloo mukk ci magi bàkkaar yi gannaaw buñ tuubee la ca jota rëcc ndegam amoon na bu fekkee amul woon nag mu gën di tawfiiq te koy moytu magi bàkkaar deesu ko topp goney bàkkaar te kon fi nihaaya day daal nekk ku amul bàkkaar te jullit bu ne defe naa ne loolu lay wut sëriñ bi nga ñaan yàlla defal na ko ci ngëneelu bis bii ak bis yi weesu ak ngëneelul ëllëg ak gannaaw ëllëg te ñaan it yàlla saxal jàmm ci réew te di ko yokk te yokkit naataangeen mbokk jullit yi na ci ajit yàlla sàmm leen bañ dellu ci seeni njaboot te nangul leen te bendalee réew jullit yi bañ mën nee na jullit yi leen di tasaare ngir man leen a noot te loolu ak lu ne mel la yàlla di moytuloo naan wa'tasimu bi hablillahi jamia wala tafarraqu kon nañu jéem jub lu sëñ bi ñaan ñaan jàmm itam am na ci loo xam ne noo ko war a def te noo ko mën a defal suñu bopp te mooy nuy jéem a jub tey jubal sëriñ bi mu taw yaay su digal ñu tere ñu ñaanal ñu war di jëfe ndigalam nag bàyyi ay tereel gannaaw gën mën ne weesuñu di ñu fàttali ndigali yàlla ak i tereel te bokk na ci lim nuy digal nuy jéem jub tey jubal jub ak jubal fu ñu dem te jàmm néew fa buñ fa wàggee mu fekk leen fa wala aksu saxiix fu ñu indi jàmm itam buñ fa jógee jàmm ja dem toppi leen buñ leen fa sàmmee nag ñu sax fa ak jàmm ja fekk sàmm gaa ngay am ay bisa ngi ay bisa ngi nag yu màgg fa yàlla nu war cee doolee jëf-jëfi topp war cee doolee wattandiku jëfi mooy jëfi topp ji gën a ràññee ko tey nag ci ku ko mën a def bu dee asgar di jullit moo xam mag la walla ndaw góor la walla jigéen ku ne fu dëkk la wala ku ne ci tukki bu néewul ci at bay def hadiyu mu wut lu lu ma tabaski ci xar bay nag giléem ndax maa amila aadamiyun min amalin yowma nahri ahaba ila allahi min ihraqi dam ila axiril xadis lim koy mën ci xar nag mu am at bu jàppandiwul mu am fukki weer juróom-ñetti weer bu eggul foofu lu néew néew maam mboq juróom benn weer bu dee ci béy mooy mu dugg ci ñaareelu at nag wu dugg ñetteelu at bu duggee ñeenteel mu gënati gëléem ku dugg juróomeelu at bu duggee juróom benneel gënati lu mu ci man di doon it bu mu am jenn ayib ju ju bokk ca ñeent ayib ya ca hadiisu albara ubnu azib bu siiw ba bu mu am it ayib ju yem jenn ci ñoom te ayib ju yées jenn ci ñoom wax nopp ñeent ya ñooy soox pat wopp jeex ba ñàkk garis ñàkk yuur bu muccee ci ayib yépp nag ju fés ju fésul muxtaar bu ci boolee jaxase weex ak ñuul am béjjën jaxase weex ak ñuul te ñuul ñuul ya bañ a génn lawar bët ya lawar gimiñ ga biir ba tànk ya kon dees na mën a wax ne niru na am xar mu yonente bi masa tabaskiyee sallallahu alayhi wa alihi sallam am ñu ko gis nettali ko wala lenn ci ñoom nettali te jëf ji jullit bi jëf lu mu gën a jege ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa baraka jëfe woon rek ci lay gëne fii ba sawaal di jot ci la def di gënee kum jàppandiwul ci moom fii ba jant bi soo gannaaw ëllëg ñenn ñu ne fii ba sawaal gannaaw ëllëg fu mu fi jàppandee baax te bañ koo def guddi def gi it lu mu gën a jege yor yoru tey ci lay gën ba des ëllëg ca gannaawu sawaal moo gën a jege yoor yooru gannaaw ëllëg waaye yoor yooru gannaaw ëllëg lañ gën a taamu ci moom lii lañ tënkoon ci bis maa ngi balu ak ñëpp di balu it àq yëpp di maasala yu woyof ak yu diis tey ñaanal sëñ bi yàlla guddal fanam wéral ko àggaleel ko ay naalam te naanu ko ak moom ak kilifa yoon wi ñëpp yeneen kilifa diine yi itam noonu yàlla bay yàgg leen ci kanam seen njaboot